D'abord, le préfet de Dakar interdit la manifestation de Yehui Askanui prévue ce vendredi. Selon euh, l'autorité préfectorale, le lieu retenu ne peut accueillir ce genre de rassemblement à cause de travaux d'envergure au niveau du chantier du BRT. Il a aussi interdit la manifestation du mouvement Frappe, manifestation pour la libération du journaliste Pape Alénian. Je vous salaamaaleykum mbokku téléspectateur suñu chaîne Kifne TV ak mbokku auditeurs yi Afka rajo bu ñëwee tey ci baaru xibaaru alxames ji mu tombeek juróomi fan ci weeru janvier atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett doo rek nag euh, affaire Pape Alé Niang journaliste bi nag euh, s'est engagé nag euh, ne du waxati nag ci dossier judiciaire bi nga xamante ne concerne ay force de défense ak de sécurité ak autorités yi nga xamante ne nag ñoo koy incarné ci ko règlement définitif bu dossier bi emprisonnement Pape Alé Niang ba léegi nag avocat journaliste boobu nag déposé nañ benn nouvelle demande liberté provisoire ci suba gi nag ci table juge juge bi nag bu deuxième cabinet présumé meurtrier bu enseignement Bassirou mbay nag moom daal dem na sa gendarmerie nag selon famille nag Aminata Touré mi ñu accusé nag malversation nag présumé yu toll ci deux milliards ci gestion bu gestion bu conseil économique et social environnemental nak eh, mom nga ñu ngi dénoncé information bu nak ne information dal du bu wër bi nga xamantene ne seen sol bi nak eh, mo ñu porte atteinte dal eh, honorabilité ak demande bu audition publique collectif numéro 94 milliards nak office national de lutte contre la fraude ak corruption ñu koy wax of nak nak traqué na dal tay Sarr nak ouvrir na dal ben information judiciaire nak contre tay Sarr nak selon journal exclusif soo nag maire Ousmane sonk effectué na benn visite de chantier nag pour xool nag état d'avancement liggéey bi amaloon construction foyer des jeunes bu kan saoudi bi nga xamantene ne nag maire bi daal kontaan na ci li nga xamantene ne daal noonu la liggéey bi di doxee. mbokk téléspectateur suñu seen Kifne TV ak mbokk auditeur yi FK rajo foofu lu ñuy tëjee xibaaru bés di rafetlu seen kóolute ak seen mbégte seen télévision ni TV di leen ñaanal jàmm ak salaam dina ngeen continuer di wéy du si bépp programme ak événement bu Kifne TV jërëjëf.